mbokk yi ci tàggat yaram la ñuy mujjee gannaaw bu ñu sant gërëm Seydou Camara ci boobule xibaar ñu dem seeti ji euh, coach seen euh, seen fit euh, moom nag nee nañ bés ni ki démba génne na nag li nga xam ne moom mooy ndew yi nga xam ne ñoom ñoo war a teewal Gambia si yenn ci ay jongante nga xam ne nag war naa dox suñu diggante ak yenn ci ay réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu la ca li di bitim réew na Gambia nag nee nañ daal seen next training camp bi ñu ngi ko war a amale foofu la ca Antalya Turkey ñu ne nag Skopje si booy suñu jiit yi ñu ne nag ñoom dinañ nekk foofu la ca li di Turkey seen report booba diggante fukki fan yi ak ñeente yi ci weeru novembre ba jàpp ko ñaar fukki fan yi eh, ci weeru li di eh, novembre léegi nag ci loolu dina am ñaari friendly match mooy match xaritoo yi nga xam ne dafay dox seen diggante ak ñi di DR Congo loolu dina doon ci fan yi ak juróom-ñaar yi eh, li nga xam ne nag moom moo di di seen diggante nag ak ñi di Liberia ne nañ boobu dina doon si ñaar fukki fan yi nag ci weeru li di novembre mu mel ni yooyu yëpp ay waajtaale nga xam ne Gambie daf koy def pour seet nag suñu national team bi nag fu mu toll mbokk bi nga xam ne nag Jacqueline Koli moo ko binda dañ ci ànd ak Seydou Camara mu ànd ci yaatal Thompson Faith head coach ci national team bu réewu Gambia génnee na 23 man squad list bi nga xamante ne ni ñooy dem foofa ci réewu Turkey ci seen dëkk bi la mu di Antalya foofa sa Antalya nag jàpp nañ ne Gambia dinañ fa am training camp jiiti réew mi nag dinañ dem ci dëkk boobu foofa ci réewu Turkey tàmbalee ko fukki fan ak ñeneenti ba si ñaar fukki fan yi ci weeru novembre bi ci diggante boobu nag dina am ñaari jongante xaritoo yoo xamante ne ni dinañ ko def. mu di international friendly matches ci suñu diggante ak DR Congo boobu fukki fan ak juróom-ñaari la naka noonu it dinañ amat beneen jongante xaritoo suñu diggante ak Liberia ci ñaar fukki fan yi ci weeru novembre. liste bii nga xamante ne nii coach seen Feit génnee na ko nag di wane jiit yi nga xamante ne rek ñoom la daal di oolu pour jongante xaritoo yooyu. jàpp nañ ne tamit am na ndaw yoo xamante ne ndaw yu xarañ lañ bokk nañ ci mu di njëlbeeni yoon ñu oo ci national team bi bokk na ci player bi nga xamante ne mu nga la ci OB Odense ñu gën koo xamee ci ba Minteh ak kii di Gaspar Cissé ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañ yoo xamante ne ni Tomson Faith dugal nañ leen ci 23 man squad bi nga xamante ne on na leen pour ñu dem foofu ci réewu tokk yi ki nga xamante ne moom lañ gën a ràññee ci liste bi sax moom mooy ndaanaan bi la ñu gën a xamee ci Hamza Bari Hamza Bari nag dellu siwaat na ci national team bi gannaaw bi nga xamante ne ni ñetti atu yàlla moom xam sa Bari ñëwut bokk ci national team bi li ko waral mooy dafa gaañu woon waaye jamono ji nag gaañu gaañu boobu wér na naka noonu it mu am ñoo xamante ràññee nañ leen bu baax a baax. ci national team bi ñooñu nag bokkuñ ci liste bi nga xamante ne seen Feit génnee na ko bokk na ci Ibrahima Dabo Steve Traoré Ibu Adams Modou Baro Alfousseni Diatta Seydi Janko Sirif Siñaan nee nañ ñii ñëpp bokkuñ ci liste bi eh, te nag nee nañ lu waral bokkuñ ci liste bi nag mooy ne dañoo gaañu loolu moo tax mu ñëw ñëw uyu si Gambia ci jongante xaritoo yooyu waaye nag bokk na ci kii di Ibrahima Koli moom nag jàpp nañ ne dafa am li nga xamante ne moom moo waral moom munta ñëw teew ci li nga xamante ne moo nekk jongante xaritoo yooyu ndax personal reasons nee nañ loolu moom moo tax Ibou Touré nag nee nañ moom football club bi nga xamante ne moom lay pléyal mu di Salford City ñoom ñoo ko nanguwuta bàyyi buñ sukkandekoo ci kàddu yi nga xamante ne GFF gaarale nañ ko bokkaat ci African Cup of Nations bi nga xamante ne war nañ koy def eh, ci atum bi mu di ñaareelu African Cup of Nations bi nga xamante ne Gambia bëgg nañ pour participer si naka noonu ne jàpp nañ ne qualify ci yoo xamante ne nii home and away la muy nekk ci weeru match atum 2023 naka noonu tamit bi daal eh, biir rek moom moo nekk bés yi nga xamante ne FIFA daal di ko jagleel pour jongante xaritoo yi nga xamante ne ni euh, mooy pour waajal seen euh, football team seen national team yi euh, te loolu moo waral nag Gambia jàpp ne li nga xamante ne mooy fixo bi lay fixo bu am solo la te ñu war koo def foofule ci biir di réewu Turquie ci seen dëkk bi la muy di Antalya ñaari jongante xaritoo bokk na ci benn DR Congo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réewu Liberia Seydou Camara Star TV News.